eh eh eh ñanku ci kaay taxaw ni eh saay awa wala asim ñoom ñi ñëpp di si naa ko naa naa xool ma awa eh boye eh boye eh boye eh boye boye awa eh boye eh kaay taxaw ni eh boye wala asim ma ma naa tab de juróom juróom ñaari safar mën naa awa eh boye eh eh indi micro bi bi bàyyi micro bi gaa leen taxaw ni eh jëlal drapeau bi jëlal drapeau bi eh taxaw leen nii taxaw leen nii. yow yow saa da nga sa jëmmi boppam sa lamiñ bu lay bi di mel ne bool bu bees boo ñëwee avant noo télése. ah yow sa sel bi wala as yow ñaar lu wax yëpp dégg nañu ko. wax lu mu bëgg wax saa eh, eh bëgg a taxaw leen nii. booy booy booy kaale booy booy booy booy kaa leen taxaw nii léegi yéen taxaw leen xaar ma ma ñëw waaye yéen taxaw leen xaar ma ma ñëw yow yaay kan teen waa man la mu ndumbe man la mu ndumbe waay <laughs> fan nga dëkk man maa ngi dëkku benn barak fan. benn baraak. ok indi. <laughs> eh. yow yaay kan. may yàqoon may naan. yaay kan nga ni. naan. fa nga dëkk yow. Malika. yow mënoo bàyyi 15. xam avant bay ma gees ana ñànku numéro deux eh laajuma la taxal eh, eh eh booy eh yéen a ngi eh da ngeen a commencé réew de booy nee laaju la taxal ni eh taxal ni ah yaay kan saay man man bu kay bu kaa boo waxoo la xam ne maa ñàkk vraiment du ma la doo non non non non du man maay wax du man maay wax kuy ñànku numéro 2 public bi ñooy wax kan mooy ñànku numéro 2. waaw sa kay ku ci nekk ci yéen. ku ci nekk ci yéen. am nga une minute. nga présenté wu. wax yow la kan. après public bi. ñooy wàññi di wàññi. di wàññi. di wàññi. déjà pour commencer. di wàññi waaw. Ndaayaan ak ma waaw. yeneen bi yeneen drapeau bi yeneen bi. saa bi yeneen drapeau bi. booy damay ñàpp sax eh. yaa ngi dégg yow kaay kaay kaay kaay kaay ñëwal fii am nga eh eh ay kilifa fi toog de ay kilifa toog. ay kilifa fi toog. yow yaay kan une minute nga am une minute. saa ma kay bu ngay woote fuyu maa ful toog bu ma leeral boo dañuy jëkkante ci la xaal ñu nguluñ nguluñ bu fa boo ma xaar ban toog ma dox naa ko ñëw maa maa kay mama ñanku fala maale bolom mbàkke boowal golden boy plus kaale bolom anaconda bu léegi ayca léegi on va présenter les ñanku restez tranquille s'il vous plaît booy sànq bi instant bi ngay présenté woon ñëpp ngi doon xool waali di wax waali léegi présenté waatul am nga 30 secondes pas une minute 30 secondes gaaw gaaw gaaw. ah ok pour fàttali leen ne ñu ngi seet kan mooy ñàkk numéro de moom la ñuy seet. ah ayca. ok d'abord mu nuyu Wally Seck par français boo petit Wally vous alliez très bien kaw ma ma maa ñàkk fole mu ale numéro deux borom mbàkk bool nee naa man golden boy plus anaconda bu lëy boy waaw boy boy te nga te nga wax ay affaire anaconda rëy ok yow booy yow yaay kan hmm? yow yaay kan hmm? moom maanaam ñànk bu gambi bu gambi waa ñànk bu gàmbi waa waa su waa looy lee saneex mu lee fii xaaral ma dem ci beneen ñànku ma dem ci beneen ñànku yaay kan kay ñànku New York yaay ñànk bu kay New York hmm? ok léegi mën nga téye sa micro hmm? nga wax une minute après ñu dégg la ñu xool kan mooy ñànku baax bi waxal. ok indi micro bi xaw ma ko indi micro bi bàyyi micro bi booy yow yaay kan. waa xaar xaar bàkki bàkki seen bi wallaay asim booy dof nañu fii bu yegg fii bu ma ñafe sama fii. sa xaaral rek bàkki sëñ bi wallaay asim ñii eh man mi maay ñànku de eh eh ñii ñii ñëpp laaj leen fa leen dëkk man Malika laa dëkk moo tax mani ni waale mii daa am waay mooy moo tax ma ni eh kalkata yumbe wax leen kalkata yumbe jaaga di doomu coon yow yaa ñu doo bënn doo fëkk kenn du la jàmbat garanti la wax leen wax leen Calcata Yumbe hee Calcata Yumbe ma ne wali Calcata Yumbe ya doomu jaaga di doomu jot condo yéem doo banu doo fukk kenn du la jàmbat taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw am am yow yaay kan gaaw gaaw gaaw gaaw booy doo gaaw ñi sànq ba tey ñu ngi naan affaire bi salaamaaleykum maay ñanku bu Tëngéej je suis le président de la foule foule furieuse maay président Dofi. booy yow yaay kan. oui oui. man la ñu am faax mbaaw jóge faax mbaaw wala ñëw fii tëb fii ba waaye ba ba mboq lu mbax incha allah bu soobee eh booy yow yaay kan booy temps amul de booy temps amul de yow yaay kan. maa ma kay man la kan. waaw mais kay yow sa boo boo ñëwee fii dama laay man la kan de leen. waa juróom fee xëbal xëbal yàlla du ma la booy yow yaay kan. booy yow yaay kan. man la ñaanku yaa fala maa leen yaay sëq dëlum bu la so gëdë boo de la kala laaw ma jam fii càkkote ma ñàppala ñu ko sikka si kala ka nanga e eh, Didier ma son pour ñaanku yi une minute une minute ñu xool kan mooy ñaanku numéro deux ayca